La ilaha la ilaha illallah Karim Fallilo Sayyidina Muhammad la ilaha dugg si doomi bi yàlla dogal it far ko woo moom mi fekk sëriñ bi nekk ci ñaari rakk yi ba ma ko ko woo mu dog yëpp addunaa mi yëpp wëñu ndar la biñ demee di dox ba sëñ bi woo ma laaj ci biir bi ma ne ko ni mënu ma laaj ma niñ demee ma ne ko gaa yëpp a ngi fi kenn gisu ci la ma ne ana Ibrahima Mbengue ma ne ko mi ngi fi mu ne ma jox ma ko ci laa yónni di jàll mu woote may xam le nag ne sëriñ bii ku baax waaw lool lool ku baax ku bëgg sëñ Abdou Karim dëgg ndax fa ne ji nga muy jël yitteem yëpp bàyyi ko aw yoon ba dikk tudd suuf yal na la yàlla xaadim ndaw nag. li ma sëriñ bi wax. mooy mi ngi koy sant. mi ngi koy gërëm mi koy ñaanal. di ko ñaanal képp kum nekkal ca kër ak képp ku di taalibe te nekk ci àddina. amiin rawatina. bokkam yi mu bokk nekkal. ñëpp la bi ma wax naa ko ñëpp kii la ma laaj ci mujj ma ne ko mi ngi yoon wi di ñëw mënu ma compte déglu ma ne ko dégg dañoo jàpp ne buy agsi te sante ak bi agsi pabli sëñ bi yàlla dogal bi mu egsee toog sëñ bi woo ma na ma génn naa ndóoyeen bi ak maa ngi ci bi mu ñëw mu fekk fi kii ñu ko wax Tanor Njaay mi di kilifa yoonu gotoro bii ñu doon def bëgg sëñ Abdou Karim bàgg ci lool lépp lu muy def ak luy taaral buntu këram ak loo xam dana tax liggéey bu mel na mu war mel dem na ci sëñ ngi nii Afe Jaw a ngi nii sëñ Cheikh Oumy ngi nii Mara Ndiaye ngi nii sëñ Jiile ngi nii Fata Ndaw a ngi nii way juru soxnaam mii nii toog sëñ Baye Laat Ndiaye ndax xaadim fàttali na ma ko yett yoon ba dóor ma ci li muy xam li may xam ne nag de xam nga ci tam fekk ci xam dër li ci des nag li des nun noo ngi sant sëñ bi jox nu njéemé mi noo ngi sant yàlla sant sëriñ Touba sant sëñ fal sëñ Abdou Karim bi nga nu joxee sa doom amuñu ci moom sikk de amuñu ci moom sikk de man ñii de li may yekkal yekk boo xam bii dama digg fekk ko fa du jeex du xaaj dama na na ko cee bañ a man nag du ma du ma gërëm sëñ Abdou Lahad ko xam gërëm ku ma defal dara wala ku ma maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kii toog nag di pabli pabli pabli nu mu tudd ah Pape Mamar maa ngi tàmbalee sama cant ci bàyyam Sidi Ndiaye mi nga xam ne alaaji li sa Ndiaye mu jur kii maa koy sant bi ko gërëm gis naa ni mu téye sëñ bi gis naa ni mu téye xaadim ñun ña fa kenn ku ne jox na la sa wàccuwaay maa ngi ak nga joxee ci sama kër ay lalt yu baax bi màggal gi jublaa ko wax mu wut ko jox ko ndaw mu indil ma ko sama kër ba fii ne maa ngi koy jël di sant ñëpp di gërëm ñépp kii toog di Afe Jaw ba ma demee Daara. 1955. fa laa fekk Sooda Njaay mi jur soxna Maguette Bousso mi ko jur. lum togg ma lekk. fu ne aw nan kon am na fi ndaje ma keroog ba ma sañ bu woon ne ma ñëw ma ne ko ñaar ñii taxaw tiim la du asaar. xaadim ndaw mi ak Afi Jaw taxaw fi sewet du asaar. keneen laa mënut a wax dara waaye ñii li ma ci war a ko ndax xam naa ko boo gisee sëñ Fallou def gaar bu ndaw ci Touba maami kee tax ñetti jigéen la ñoo man ci Touba ci jumaay Touba awa ba say gay fan njaay la ñaari saako la ñuy tegale yooyu si mag jëlee ko ca gar bu mag godoroo amut dara amut sëñ lu génn ci këram jëm ci jumaa ji dajeeg ñoom kenn ku ne yéen ñaari saako oh. sëñ bi ne lii metti ne ba ëpp daal di wootuwaat bu dikk mu ne ko yokkal raay bi mu ne ko fu ma ko jëmee mu ne ko ca biir dëkk ba toit bi ne ko ab ab raay day ami doj ami bi ne ko soo yónnee ko ci loolu tàllalal ma rek may tàllal sama loxo nga teg yóbbul ma rek ba mu ko indi ko ba fii essence bii ci gaar bu ndaw ne fii la ba moo doon bopp ray fii lañ ko taxawale dikk na sëñ bi noppi lañ sëñ Fallou génn otoom dem ca gaar bu mag saxaar gi ñëw mu dugg ca ba agsi dikk wàcc dugg ci oto bi ne gaar bu ndaw a ngi nii lu dikkati na dikk ba agsi bi ndax mu jege borom gaar bu ndaw gi xarim ndaw loolu du tey gar boobu bépp ñaar fi dëkkoon Mor Tabara Ndaw si ñaar Mor Tabara Ndaw doomam juma Fallu Ndaw aw ma Mamaw Ndaw gis nga lii démb la du tey yal na nu yàlla may dem jàmm sëñ Abdou Karim yal na ko fi yàlla yàggal yàggal fi ñëpp ku ku ku ku bëgg ngóor si la ngóor si neex naa bëgg ndax sawar na mas na maa woon ne ma xam nga luy jikko xaadim ndaw wallaay la sim noonu la ma ko waxee maa ngi moom ak képp ma ne ko luy jikkoom mu ne ma daa bëgg mboolem li àdduna li ci nekk lépp mu la ko jox ma te loolu nag mun eh, ta noonu la ma ko waxee kon nag sëñ bi nan ñaanal ci barkeb samaam yiw suñ seexu mi mi sëñ maaraam euh, yi sëñ Mbàkke ñaan leen ci seen darajey maam Sëriñ Falilu suñ nawet bi yal na ko yàlla àggale li nga xam ne moo fi nekk ci ay binde bi yal nañ am jàmm am wërsëg seenu taalibe sëñ Tuubaa téye leen ko ba kenn du ci man dara ci barki Seexal Xadim sant Xaadimul Xadim sëñ Abdou Lahad Ndiaye nee na suñ du ci sori nee na ñu ngi nuyu Serigne Galas nee na sëñ laa yëbbante ci sëñ bi de waaye nee sëñ Galassoum sëñ Ibrahima Fata sëñ Blaat Ndiaye nee na bëgg na ay kàddoom egg ci sëñ bi. nee na mi ngi nuyu Serigne Seexu mi Mbàkke mi toog. ak sunu sang fi toog yëpp. di leen xamal ne. lépp sëñ Abdou Karima. nee na mii bi mu koy bëgg. bi ko Serigne Xaadim Ndaw mii di bëgg. nee na booba moom mii di sëñ Lat Ndiaye gisul xa sëñ xaadim gisul bokki xaadim sëñ xaadim daa yeble këram rek sëñ bi ci boppam moo yeble kër kër sëñ Abdou Lat Ndiaye nee na sëñ bi Karim ne ko dama am taalibi bu bëgg sa doom nee na li ñuy faral di def ci jigéen nee na loolu jaaruñ ca nee na ba mu ñëwee mu daan ne ko nan ko def ni ko bëggee. ni nga ko bëggee. te nee na lu mu ci mën a bëgg rek. noona lay amee. ndax moom day. sa borom dañoo boole lu yàgg. nee na booba mi ngi door a jóge ci daara ji. sunu yàlla sunu yàlla dogal sunu borom dogal sëñ bi di ñëw ci sëñ Abdou Lahad. kaamil boobu ba ko sëñ Abdou Karim di jébbal Cheikh Abdou Lahad Mbacké sëñ Abdou mii nee na booba ma fa toog seede ko nee mbind ma xaw a sew nee na mbind ma xaw sew dàq ci mbind yi sëti yi dàq ci yi sëti Serigne ne ko Serigne Abdou ne ko mbind mii day mbind mii day fi mu ci sama xol. fi mu ci sama xol. su ma sañoon. su ma sañoon. nga yokk mbind mi. nga yokk mbind mi. te bindal ma ci ñaari bàqara. te bindal ma ci ñaari bàqara. bu ci nekk na su na ëppante. benn bu ci nekk ñoom ñaari bàqara bu ci ne na ëppante. son borom dogal. son borom dogal. sëñ Karim bind saaru bàqara. yàlla dogal sëñ Abdou Karim bind saaru bàqara. indil ko Serigne Abdoulaat Mbacké. am na ay saa yoo xam ne. nee na am na ay saa yoo xam ne. daf ma koy fàttali sax moom sëñ nee da koy fàttali sëñ Abdoulaat Ndiaye mii. nee na sëñ bi ba sëñ bi ci jëmmi boppam bind ba ko ko. dafa rëcc. nee na daa ne dënnu Serigne Abdoulaat dafa rëcc. daan ne ko sëñ Abdou. mbind mii de ni mu ma yéeme. mbind mii de ni mu ma yéeme. da nga ko yéeme jaam yi. da yéeme jaam yi. jërëjëf kay na loolu de sëñ Blane Ndiaye moom moo koy seere moo ko fekk sëñ Blane wax ko sëñ Abdou Karim. ku sëriñ Abdou Lahat gërëm la. moom sëñ Abdou Karim. ku waajuram gërëm la. ku waajuram gërëm la. dama nekk kër Soxna May. ndax nee na moom danaa nekk kër Soxna May. Soxna May Xaadim. Soxna daan fa jógee dem ca kër ga. daan fa jógee di dem ca kër ga. su ma saan tàng. nee su ma a tàng. moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Abdou Karim mii. ba mu cay tollu tàngoor ba mu daan àndal. ba mu cay tollu tàngoor ba daa àndal. mag sax du ko jege. mag sax du ko jege. waaye yàlla dimbalewu nañu. waaye yàlla dimbalee nañu. bu mu ñëwee ci dend ak moom. nee na moom si Laat Njaay mii bu ñëwee dend ak sëñ Abdou Karim. di waxtaan ak moom. di waxtaan ak moom. aal ja day dem day day dañ na aali sëñ Abdou Karim joojee dañ saa si. nee na sëñ Blaat Ndiaye mii nee na loolu lu mu dund ak sëñ Ibra Karim la. Serigne Fallou nag. Serigne Fallou nag. ñu ngi lay sant moom Serigne Abdou Fatah sëñ Blaat nee na ñu ngi lay sant di la gërëm. ndax ñun ñii kat. ndax nee na ñun ñii kat. borom dogal na. suñu am di ñaan moom mi nga xam ne seen waajur la. sëriñ am di ñaan ma nga xam ne sa waajur la. sama doom lay denc. nee na moom kat doomam lay denc. di magu njéeme mii. kon alhamdulilah mbir mi kon alhamdulilah. maa ngi sant nag sëñ Xaadim. nee na yow nag sëñ Xaadim ndaw ci sa wàllu bopp sëñ Blaat Ndiaye nee na mi ngi lay sant. ndax am na yar. am nga yar. am ngay teggin. am ngay teggin. am nga njariñ. am nga njariñ. fonk nga say bokki taalibe fonk nga say bokki taalibe. sa xarit yi nga am ci kër gi yëpp. sa xarit yi am ci kër gi yëpp. boo ñëwee daara danga ma leen indil. boo ñëwee daara danga ma leen indil. sëñ Ibrahima Mbengue mii. fekk naa fi nag sama doom. nee na fekk na fi nag nag doomam. ñu ko sama baay. ko baayam. muy Mor Lissa. muy Mor Lissa. Sidi Amin maak moom. mook moom. amul lu ñu liggéey lu sëñ Abdou Lahat. nee na amul lu ñu liggéey lu sëñ Abdou Lahat. Touba am na fi kër yu yoo xam ne. am na fi kër yu bari yoo xam ne. lu bari baayam lijjanti. bari loo xam ne sa baay moo ko lijjanti. ci famille yu mag yu mag. kon su ma ko fekkee. kon nee na bu la fi sëñ Blaat nee na bu ba ñuy tudd Abdoulaat. nee na keroog ba ñuy tudd sëñ Abdoulaat. moom moom sa baay. maa ak sëñ Modou Mamoun Niang. nee na moog sëñ Modou Mamoun Niang. ñoom la sëñ Blaat yebaloon. kon nag nee na kon nag. na xam na nga xam ne. fii nga nekk ci kër gii. fii nga nekk ci kër gii. seen xol sedd na fi. seen xol sedd na fi guyu. loo fi def it yëg nañ ko. nee na loo fi def it yëg nañ ko. ba jolof loo fa def. ba jolof loo fa def yëg nañ ko. nee na yàlla yàlla saxal teraanga ci sa loxo. ñu ngi lay sant bu baax. di gërëm bu baax sëñ bi Abdoulaat daal nee na sëñ Xaadim ak sëñ Fallu sëñ Abdoulaat nee na moom loolu la bëggoon a wax soxna Njéeme soxna Njéeme liñ ko digaloon liñ ko digaloon ba léegi mi ngi ci ba léegi mi ngi ci moo ko may lii moo ko may lii sëñ ko Karim mi mu boot sëñ Abdou Karim mi may mii teg ci soxna may mii yaafuus mayu ko yaafuus mayu ko ko kon nag ñu ngi koy dénkaat kon Xaadim mu ne ñu ngi la koy dénkaat ci barke sëñ bi yàlla na la yàlla jox loo ko téye yàlla la yàlla jox loo ko téye mi ngi ñaanal. xalifa général des Mourides. xalifa général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké. mu yàgg fi loolu te wér. ko ñaanal it. sëriñ Abo Baraka. mi nga xamee ne mooy xalifa sëriñ Fallou. mu yàgg fi loolu te wér. noonu la koy ñaanale it. sunu yaakaar tey ak ëllëg. muy sëñ Abdou Karim Mbacké sëriñ yàlla na fi yàgg te wér. noonu la koy ñaanal it. doomam ju tedd ji fi teew. doomam ju tedd ji fi teew di Serigne Fallou Mbakke. di Serigne Fallou Mbakke. ibnu Cheikh Abdou Fatah Mbakke am Serigne Fallilou. moom it yàlla fi yàgg te wér. kon sëriñ bi. sëñ Xaadim nee na ñu ngi lay nuyu. suñuy nuyoo yëpp nag. nee na suñuy nuyoo yëpp nag. ñun bokk taalibe yi nga xam ne. ñun bokk taalibe yi nga xam ne. ñoo fi toog. ñoo fi toog. Euh, am pas-pasu. am pas-pasu. liggéeyal sëriñ bi. liggéeyal sëriñ bi. yaa fi sëñ bi tey. nee na tey jii kat jotaay bi yaa sëñ bi. yaa fi sëñ Abdou Karim Mbacke. ñu di la nuyu nag. nuyoo boobu it nag. nuyoo boobu it nag. ak siyaar boobu. boobu. dañ koy teg ci sa loxo rek. dañ koy teg ci sa loxo. boo eggee. boo eggee. nga jot li ñu ko sëriñ bi. nga jot ñu ko sëriñ bi. ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay nuyu bu baax. di la siyaare. di la siyaare. di siyaare it. di siyaare it. sëriñ Mbacke ñang mi mi nga xam ne. moom jarbaatu sëriñ bi la. waajuram wu jigéen. ak sëriñ bi. ñoo bokk lépp. di nuyu it. Euh, sëriñ Pape Lissa Ndiaye mii. sëriñ Pape Lissa Ndiaye mii. nga xam ne. nga xam ne. xamu woon sax. xamutoon sax ne. nii la demee. nii nga demee ak sëñ Abdou Lahad Ndiaye. sama waajur soxna si. sëñ waajur soxna si. waaw sëñ Abdou Lahad Ndiaye. sëñ Abdou Lahad Ndiaye mii. xaw ko sax. nee na xamu ko woon sax. waaye nag yàlla. waaye nag yàlla. lu mu def rek. lu mu def rek. du asaal. du asaal. nee na mi ngi lay nuyu nag. xaritam nga. baax nga ku baax nga. rafet ku sa jikko rafet nga. loolu laa téye ci moom. nee na loolu la sëñ nee na loolu tax mu téye ku amuk taalibe nee na ku amuk taalibe nga lu baax na mi ngi lay nuyu bu baax tanoor nee mi ngi nuyu sëñ tanoor léegi bàyyi góor say leeral na ko ci asirut la nekk ci asirut nga nekk taxawaay bu am solo taxawaay bu am solo ngay taxaw ci sëñ Ibra kër sëñ Ibra Karim mi nga xam ne mi nga xam ne ku xam sëñ Ibra Karim ku xam sëñ Ibra Karim xam taxawaayam xam taxawaayam ak pas-pasam liggéey bi sell ci liggéey bi sell bay liggéeyal sëñ Abdou Karim maa ngi nuyu it nag mi ngi nuyu nag sama mag ji nga xam ne magam ji nga xam ne ñoo bokk ndey baay ñoo bokk ndey ak baay muy Cheikh Abdou Fatah Ndaw laxasaay gii ma nekk nee na laxasaayam gii mu ne moom mii jaar na ci moom mii jaar na ci bi mu bi mu ganee jamono bi mu ganee jamono diir bu gàtt. diir bu gàtt. la ko sama baay. la ko baayam. jox sëñ Abdou Fatah Mbacke mii. jox sëñ Abdou Fatah Mbacke mii. muy waajuru sëñ bi. muy waajuru sëñ bi. fala laxasaayoo. fala laxasaayoo. ba leetulu ngërëm wàcc. ba leetulu ngërëm wàcc. ci la ñibbisi nag. ci la ñibbisi nag. nga xam ne. nga xam ne. sama baay. seen waajuru sëñ si ni ndaw. sama baay man. baayam moom. lu mu am. lu mu am. sëñ faloo ko moom. sëñ Falloo ko moom. doom yi sëñ Fallu yëpp. doom yi sëñ Fallu yëpp. tudde na leen doom. ñu ci ëpp leen doom ku ko ci tuddee. ku ko ci tuddee. jox na la jox na la ko. sëriñ bii. sëriñ bii. monsieur Ibou Karim. muy sëriñ Ibou Karim. bi mu may wax ne ma. bi mu koy wax ne ko. sa baay day. sa baay day. mas na nañoo ànd. mas nañoo ànd. mu wax ma ne. mu wax ma ne. dinaa la tuddee doom. danaa la tuddee doom. mooy doon sama cër ci yow. mooy doon sama cër ci yow. sëñ bi nee na. sëñ bi nee na. bi loolu jàllee bi loolu jàllee bi nga egsi ci samay loxo bi nga egsi samay loxo ci laa xam ne ci laa xam ne lii la sa baay doon wax lii sa baay doon wax barke borom Tuubaa dëgg la loolu ci dëgg wér ci nga la waaw waaw waaw kon maa ngi leen di nuyu mi ngi leen di nuyu di nuyu waajuru Ndiémé mais di nuyu di nuyu Cheikh Abdou Lahat Ndiaye mi ñaan ko Cheikh Abdou Lahat Jolof di waajuru Ndiémé ku jàmbaare la ku jàmbaare la sëñ bi laata ko yar sëñ bi laata ko yar lu mu wax digganteem ak sëñ Abdou Karim lu mu wax digganteem ak sëñ Abdou Karim dëgg la dëgg la ndax toog naa ndax toog naa sëñ bi toog sëñ bi toog muy nettali yu bari muy nettali yu bari yoo xam ne yoo xam ne lu yàgg la lu yàgg la kon lépp lu mu wax li mu la wax rek dëgg nee na kon sëñ Abdou Lahad Ndiaye mi lu wax ci digganteem ak sëñ Abdou Karim lu wér la di nuyu mbokku taalibe yi fi teew yëpp di nuyu mbokku taalibe yi fi teew yëpp di nuyu sama mbokki Baye Fall di nuyu mbokki Baye Fallam yi ñoom sëñ Rijal Guèye ñoom sëñ Rijal Guèye ñoom Babacar Ndion ñoom Babacar Ndion Basirou ñoom Basirou ñëpp rek Baye rek waaw ñoom euh, ba sëñ Badou Pouy sëñ Badou Pouy ñoom Yalin Badara ñoom sëñ Bali Badara ñoom Dame Sylla ñoom Dame Sylla ñoom Maodo bu ma limee damay jum nee na bu limee day jum waa kër si Ibra Karim bépp ku yaakaar si Ibra Karim rek nee na mi ngi leen nuyu donga yëpp mi ngi di siyaare di leen bégee di siyaare ñëpp di siyaare sama mbokki bopp yee nga xam di mbokki boppam yi nag samay doomi bàjjan mi ngi fi say ay doomi bàjjan ma ngi fi muy soxna Kolle Ñang Ñang Euh, soxna Marème Fall. soxna Marème Fall. waajuram wu jigéen. waajuram wu jigéen. ak sama baay. ak baayam. ñoo bokk ndey ak baay. ñoo bokk ndey ak baay. waajuram wu jigéen. waajuram wu jigéen. moo topp ci sama baay. moo topp ci baayam. sëñ Ablaye Fall Ndar. sëñ Ablaye Fall Ndar. mooy waajuram moom mooy waajuram moom mi. jërëjëf moom mee toog jërëjëf Fall. Ah, soxna maam bu sa ndaw soxna maam bu sa ndaw ñoo bokk baay yéen a bokk baay yaay waajurum wu jigéen waajurum wu jigéen mi bokk ci seexi daaru xudóos mi ngi bokk ci seexi daaru xudóos yi soxna awa ndaw mi soxna awa ndaw moom it noonu mooy soxna taawub njaay soxna moomi njaay moom it sama doomi bàjjan la la wa sama baay baayam ak waa ak ak ak waajurum wu jigéen ak waajurum wu jigéen ñoo bokk lépp ñoo bokk lépp soxna uh, kolle ñang soxna kolle ñang moomu moom it noonu waajurum wu jigéen waajurum wu jigéen sama baay ñoo bokk ak baay bi ñoo bokk jenn ndey sama mbokk ngi fi ñu ngi leen di nuyu nee na mi ngi leen di nuyu di leen siyaare euh, ginnaaw lépp nag ginnaaw lépp nag bu nuyoo bi jàllee sëñ ñu ngi sant sëñ sëriñ Fallou sëñ Xaadim nee mi ngi sant sëñ Abdou Karim bu baax mi ngi koy sant bu baax euh, waxoon naa ko fan yee jàll waxoon na ko fan yee jàll ci benn euh, télévision ci benn télévision buñ buñ doon wax Euh, donga tarbiye. biñ doon wax ci dong mbiru dong tarbiye yi. donga tarbiye. dong tarbiye. man sama baay. nee na moom baayam. maamam sama maam. maamam. ñun ñëpp xam ngeen ko yéen. ñun ñëpp xam nañ ko. Serigne Touba. Serigne Touba. moo ko yëkkati woon. moo ko yëkkati woon. teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Fadal. teg ko ci loxol Cheikh Mamadou Fadal. bu fa jiituwut it bu fa jiituwut it bu fa kenn bu fa kenn ñëwee moo moo leen ñaareel moo leen ñaareel mooy sëñ Mbay Ndaw mooy sëñ Mbay Ndaw sama baay oh. baayam ci la feeñ jamono ci la feeñ jamono sëñ Fallu sëñ Fallu moo takk laxasaay ci ndiggam dara moo takk laxasaay ci ndiggam dong nga laxasaay la woon dong nga laxasaay la woon di liggéeyal sëñ Fallu di liggéeyal sëriñ Fallu ba am ngërëmam ba am ngërëmam man ci laa sosu nee na moom mii ci la cosu kon lu ma war a def kon lu ma war a def takk sa ndigg liggéeyal sëñ bi Karim waaw maa ngi ñaan nag. nee mi ngi ñaan nag. laxasaay googu nga xam ne. laxasaay googu nga xam ne. ñoom amoon nañ yéene. ñoom amoon nañ yéene. liggéeyal ci Serigne Touba lu rëy. liggéeyal ci Serigne Touba lu rëy. yàlla dogal ñu jiitu ji. yàlla dogal ñoom ñu jiitu ji. yàlla naa bokk ci ñi leen ko mottali. nee na moom mii de mi ngi ñaan bokk ci ñi ko koy mottali yàlla ko Serigne Touba def. ay am mottali laxasaay googu. moo tax moo tax. maa ngi sant Serigne Abdou Karim. nee moo tax mi ngi sant Serigne Abdou Karim. bu baax a baax soxna si soxna si. bi ma koy bi ma ànd ak sëñ bi ab diir. nee na booba man gone la. nee na moom booba mam gone la. bi ma demee ba mata am soxna. bi ma demee ba mata am soxna. soxna soxna. bi mu ñëwee ci moom. bi mu ñëwee ci moom. na ko am na ku ma gis. ne ko day am na ko ma gis sëñ bi. dama ko bëgg soxna. dama ko bëgg soxna. sëñ bi ne kooku fu mu dëkk. sëñ bi ne ko kooku fu mu dëkk. ma leeral ko. mu leeral ko. fi mu dëkk lépp. fi mu dëkk ak lépp. waaye booba soxna si. nee waaye booba soxna si. ci ci ñi ma jot a xam. booba xamaguma ba waajuram wii sax. nee na booba day xamagul waajuru soxna si bu baax. ak ni mu demee ak sëñ bi ak ni demee ak sëñ bi xamutoon loolu. waaye damaa wax sëñ bi ne ko. waaye daa wax sëñ bi ne ko. soxna nday ndaw soxna nday ndaw waajuru sëñ Moodu waajuru sëñ Moodu moom sëñ Abdou Karim moom sëñ Abdou Karim soxna nday ndaw soxna nday ndaw sëñ bi yoroon na ko sëñ bi yoroon na ko euh, kum bokkal euh, kum doomi ndeyam doomi ndeyam mook soxna si mook soxna si ñooy joxe sagari njaam ñooy joxante sagari njaam sëñ bi ne ma sëñ bi ne ko soxna si da xaw ma ko soxna si da xaw ma ko waaye kooku nga ma tudd day waaye kooku nga ma tudd day doy na ma sëkk doy na ma sëkk ndax soxna soosu day ndax soxna soosu day gis naa mu di fi ñëw gis naa mu di fi ñëw waaye nit ku baax la waaye nit ku baax la foofu baaxit la bokk foofu ci fu baaxit la bokk est-ce que benn bis nee benn bis ma tàggu sëñ bi nee mu tàggu sëñ bi ne ko dama fa de sëñ bi sax moo ma wax ne sëñ bi sax moo ko wax ne na nga jàpp àllarba. na nga jàpp àllarba. xaw ma alxames xaw ma alxames. nga dem naani fa kafe. nga dem naani fa kafe. sëñ bee ko wax de. sëñ bee ko wax de te tey la àllarba. ma daan ne sëñ bi. te mu daan ne bi. waaw kon àllarba mën na maa dem. kon àllarba mën na maa dem. Euh, sëñ bi na ma waaw. sëñ bi ne ko waaw. muy jóg di dem. muy jóg di dem. sëñ bi na ma kaay. sëñ bi ne ko kaay. na ma yow boo demee nooy def. ne ko yow boo demee nooy def. waaw ah, bu ma demee nuyoo ak ñoom rek. ah ma demee nuyoo ak ñoom rek waxtaan ak ñoom. mu ne boo ko defee doo am soxna de. mu ne ko boo ko defee doo am soxna de. mu daal di yëkkati xaalis bu bëri. ci nee na sëñ bi yëkkati xaalis bëri ci jibaam. yëkkati jox ko. yëkkati jox ko moom mii. ne ma ne ko. soo demee. soo demee. na nga yendu. na nga yendu. na nga togg lu añ. na nga togg lu añ. booy dem booy dem mayel waajuru ndaw si jigéen si lii mayel waajuru ndaw si jigéen si lii waajuru mu góor may ko lii waajuru mu góor may ko lii xale yi may leen lii xale yi may leen lii nga tàggatoo bàyyi ay sëñ bi baax waaye te bëggal la lu baax nga tàggatoo bàyyi leen bàyyi noonu ma départ dem nee na mu ñëw bi ma bi ma egsee. nee na bi mu egsee. jolof jolof. ñu compliqué la. ñu compliqué lañ. sëñ bi ma weeree. <laughs> sëñ bi ma weeree. ñu compliqué lañ. nee na ñu compliqué lañ. waaye bi ma egsee. waaye bi mu egsee. ba toog ba toog. sama téléphone sonné. nee na téléphone am sonné. ma xool muy sëñ bi. mu xool muy sëñ bi. bi ma xoolee muy sëñ bi. nee na bi mu xoolee muy sëñ bi. ma wàcc ci suuf. ma wàcc nee na mu wàcc ci suuf wuyu. sëñ bi daan na ma xaadim. sëñ bi ne ko xaadim. àgg nga àgg nga. ma ne ko waa agsi naa Mbàkke. mu ne ko waa agsi naa Mbàkke mu ne ma nu mu demee nag mu ne ko nu mu demee nag mu ne ko ah toggulu naa kii de mu ne ma loo toggulu mu ne ko toggulu naan mu ne ko loo toggulu añ di ko ree mu ne ko ginaar mu ne ko ginaar <laughs> bu a nee ma ne ko li ci gën a yéeme nee na sëñ mu ne bi li ci gën a yéeme bi ma demee bàgg ba toog bi mu egsee ba toog ñu ne kii kër sëñ bi Karim la jógee ñu ne kii kër sëñ bi Karim la jógee tout tànk yi ci koñ beeg nee na tout tànk yi ci koñ baag ñëpp ñëw ñëpp ñëwandoo. di sàkku ci man ak ñaan. di sàkku si ci moom ak ñaan. ngir jëmi sëñ ngir jëmi sëñ ci laa amee yaakaar nag ci laa amee yaakaar nag ne. li ma fiy mu si nag. dana day antu. dana antu de nee lépp nag sëñ bee. sëñ bee rek lépp sëñ bee. léegi. nee léegi. bi ñu jógee ci yooyu. bi ñu jógee ci yooyu. màggalu kasu rajab. màggalu kasu rajab. soxna si. soxna si. daal di ñëw ci màggal gi daal di ñëw ci màggal gi booba sañ seeguñu ndindi nee na booba sañ seeguñ ndindi ñi ngi gedde fële ca kër ña nga gedde ca kër gëla ca gedde ci màggal Kazu Rajab gi nee ci màggalu Kazu Rajab gi ma wax sëñ bi ne ko mu wax sëñ bi ne ko ki may bëgg day ñëw na ki may bëgg day ñëw na fi waaye xam naa ne waaye xam naa ne buñ ma ko mënoon jox tey ci bisu màggal gi ma ko mënoon a jox tey ci bisu màggal gi sëñ bi ne ma téléphoneel ma yaayam jox ma ma téléphoneel ma yaayam jox ma ko ma téléphoné ma yaayam fekk waxtaan naag baayam fekk waxtaan naag si Blaat Njaay mii ak ay nijaayam ak yëpp ak i nijaayam ak ñëpp bañ jël kaddu gi bañ jël kaddu gi ne soxna si bu sëñ bi wootee ne soxna si bu sëñ bi wootee nee ko nee ko moom may nañ ko ko maanaam moom may nañ ko ko sax may nañ ko amul lu soob lu soob na ko def ko soob na ko def parce nga xam ne nee na nga xam ne keroog nee na keroog sëñ Ibrahima Mbengue nga xam ne bi moom mi ngi nee moom. <laughs> waaw keroog nee na keroog. am na ku ne sëñ bi sax. am na ku ne sëñ bi sax. Euh, tey ñëw fomm may gi. te ñëw fomm may gi. sëñ bi ne ko. sëñ bi ne ko. bul yàq sama màggal gi. bul yàq sama màggal gi. ndax bu ma fi yónnee xaalis. ndax bu ma fi yónnee xaalis. demul demul. wala mu yónni ko. wala mu yónni ko. mu jaxase li ma ko yónni. mu jaxase li ma yónni. yaa ma ko teg yaa ma ko teg. <laughs> sëñ bi xam na la lépp lépp moom. nga xam ne. nga xam ne moom. ziar bi keroog ca euh, gede ca cérémonie ba. nga xam ne ziar bi keroog ca cérémonie ba fa la sëñ bi arrêté siyaar bi fa la sëñ bi taxawalee siyaare bi def may gi xutba ba pare def may gi xutba ba pare door a jàllaat door a jàllaat ci sëñ bee baax waay soxna si it bi mu ñëwee nee na soxna si it bi mu ñëwee euh, daanaka nee daanaka ay waajuram ay waajuram liñ ci feeñal liñ ci feeñal mooy sëñ bi ñun sunu yoon niwut mooy sëñ bi ñun sunu yoon niwut ci mbir mi jox nañ la kon fam nappi nañ ci nga xam ne nga xam ne euh, bis ba ma fay delluwaat nee na bis ba ma fay delluwaat moom sëñ xaadim mii maa ngi ànd ak Mamar Ñang mi nga oto bi ma yoroon sax mamara ko doon dawal. nee na oto bi yor sax mamara ko doon dawal. ak eh, am na ñaar yeneen ñaar ñu ci bokkoon. nee na am na ñeneen ñaar ñu ci bokkoon. waaye li gën a doy waar laa lay nettali. waaye leen li gën a doy waar ci sëñ bi lay bëgg a nettali. bi ma demee. nee na bi mu demee. bi ma waxtaanee ñu togg reer ba ngoon jot. nee na bi mu waxtaanee ñuy togg reer ba ngoon jot. moo woo waajuru soxna si sëñ Abdoulaye Ndiaye. nee na mu woo sëñ Abdoulaye Ndiaye mii. ne ko du ma fi bàyyi ne ko du fi bàyyi soxna si. mu ne ma lan mu ne ko oto bii may. mu ne ko lan mu ne ko oto bii may soxna si ci laay teg soxna si. defar leen ay bagages defar leen ay bagages am daa koy yóbbu. ñu ànd caag man ñu ànd caag moom. allahu akbar ba bisub tey. allahu akbar bi ma ñëwee. mu ñëwee. bi woo. ma ne ko soxna si ñëw na ma ne ko soxna si ñëw na sëñ bi ne ma yàq xaw ma sëñ nan mbàkke sëñ bi ne ko yàq xaw ma nan sëñ mbàkke nan mbàkke yéen a ko fi mas a def yéen a ko fi mas a def dem ci soxna sa dugal ko ci ba ngay dugg dugal ko ci ba ngay dugg indi ci kër gi indi nga xam ne nga xam ne loolu lépp loolu lépp baax sëñ bi karima rek ak baaxam rek ko de waaw loolu lépp loolu lépp loolu lépp fekkoon na fekkoon na njureelu Baye Sini Ndaw geeg njureelu Baye Sini Ndaw geeg Baye May Ndaw liggéey sëñ Baye Ndaw ba liggéey ba cëb sëñ Tuuba loolu lépp baax na waaye sëñ Abdou Karim waaye sëñ Abdou Karim da da da damaa dama dama dimbali ci dimension boo dimbalee dimbalee koo xam ne boo xam ne dimension boo xam ne ku jubóo wut ak suñu borom rek ku jubóo wut ak suñu borom rek mënoo ko mënoo loolu loolu li wér de dëgg la xaar borom nee na moom bu ma demee tey nee na bu demee tey ba ba di dox di dox nit ñi di ma bàyyi xel nit ñi di ko bàyyi xel bu ma demee tey bu demee tey bay dox bay dox di romb nit ñi di romb nit ñi ñuy sukk ci mbedd mi ñuy sukk ci mbedd bi di ma nuyu di ko nuyu di ma siyaare di ko siyaare sëñ Abdou Karim rek a tax moo tax de waaw góore waaye waaw góor ndokk loolu nee doon na fi loolu juddoo ci dëkk juddoo fi dëkk bi yaroo ci dëkk bi bu ma xëyee bu xëyee bu ma rombee nit ñi bu rombee nit ñi mën naa am sax mën naa du na am ci kon xam ngeen ne kon xam ngeen ne jàpp gi ma jàpp sëñ moo tax góor nga waaw góor moo tax nit ñi jàpp la jërëjëf ndaw mi ngi sant bu baax di sant sëñ bi di sant sëñ bi di ko ñaanal di ko ñaanal mu yàgg fi lool mu yàgg fi lool te wér biig biig bi may dem daral bi may dem daral damaa dem bay dugg daral daa dem bay dugg daral ànd ak Ali Babou ànd ak Ali Babou sama téléphone sonné téléphone am sonné ma xool mu sëñ ma xool mu sëñ bi sëñ bi ne ma foo ne sëñ bi ne ma foo maa ngi woon ma ne ko maa ngi woon daral ma ko maa ngi woon daral mu ne mbaa jëndoo góob gàtt mu ne ko mbaa jëndoo góob gàtt ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet mu ne ma bàyyi ko ma jox la gàtt mu ne ko bàyyi ko ma a la gàtt oh, ndekete gàtt ba ndekete gàtt bi ak ceeb ceeb ak diwlin nga war a ak la a àndal lépp sëñ baa ngi ko teg ci wetam sëñ baa ngi ko teg ci wetam génn ci ëtt bi di ma xaar di ko xaar moom xaalis yow gàtt bi ci ëtt bi yow gàtt bi ci ëtt bi bi ma egsee bi ma egsee waat na ma sax ne ma foo toll na ko di ko ma ne bi ma egsee bi ma egsee jàkkaarloog ba jàkkaarloog sëñ bi damaa daanu daa daanu ah, jar na daanu jar na jooy jox ndax waaw ndax moo tax ndax nee moo tax ma ne ko biig ma ne ko biig bul jóg ndax yow ndax yow teraanga teraanga ak cër bi ma defal ak cër bi ma defal nit mënu ko weesu nit mënu ko weesu xaalisam xaalisam mu di la ko jox mu di ko jox te du ko contrôler waaw du seet foo koy dugal du xool foo koy dugal waxtu wu ne waxtu wu bu ñu yónnee bu ñu yónnee mu ne nañ woote mu ne nañ woote nañ ko ci yónnee jox dugalal xaadim ndaw nañ ko ci dugalal xaadim ndaw te bu ko waxee te bu ko waxee pare na ci pare na ca xaadim ndaw ay joxe xamul mooy joxe xaadim ndaw mooy joxe xamul lu muy joxe xamul xaadim ndaw di joxe xamul lu xaadim ndaw di joxe waaye yoonu sëñ bi moom newul waaye yoonu sëñ bi nekkatu ci pare na ca xaalis biit nee na xaalis biit nu mën a toll nu mën a toll du ne ñaata du ne ñaata allah da laa doy rek da ngaa war wóor rek bis bu yàlla sàkk nee na bis bu yàlla sàkk six heures du matin six heures du matin man lay njëkk a woo moom lay njëkk a woo nama nañu wut fukki gàtt ne ko nañu wut fukki gàtt wala ñaar fukki gàtt wala ñaar fukki gàtt indi ci kër gi indi ci gàtt kër gi mooy li gan ñi di xéwloo mooy li gan ñi di xéwloo bis bu yàlla sàkk bis bu yàlla sàkk sëñ bi dana ma ko sëñ bi dana ko wax ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen du ko wax ci jotaay bi kon am tudd kon am tudd am ko am ko muy déplacé wu muy déplacé di ci ñëw di ñëw di ñëw mën naa seet ñeneen sax nee na mën naa seet ñeneen sax mu di dimbalee leen ko mu dimbalee leen ko waaye man de li ma defal waaye man li ma defal doy loo naa ko sëkk doy loo naa ko sëkk doy na sëkk kon loolu rek loolu rek doy na teraanga doy na teraanga kon ñu ngi sant jërëjëf sëñ Fallou kon nee na ko sant baax jàmbaar la jàmbaar nga te it xam naa ne te it xam na ne sëñ bi rek la bëgg sëñ bi rek nga bëgg waaye yëg naa ne waaye yëg na ne ku ma yëg la moom ku ko yëg nga ku ma yëg la moom ku ko yëg moom sëñ sëñ jili sëñ xaadim nee na yëg nga ko lool sëñ Longoor Mbay miit nee na sëñ Longoor Mbay miit maa ngi koy sant ñu ngi lay sant bu baax di leen gërëm di leen gërëm di sant jàngkat yi fi teew di sant sëriñ Modou Mbay jàngkat xasaayit kër sëñ Fallu ak mi ànd ak sëñ Malick mi ak sëñ Malick Mbuub sëñ Amsa ak sëñ Amsa sëñ Amet sëñ Amet ak sëñ Amet maa ngi leen di sant ñoom ñëpp nee na mi ngi leen di sant yéen ñëpp Euh, ak Serigne Khadim ñoom ñi ak Serigne Khadim ñoom ñi ak euh, mboolem góor yàlla yi fi mboolem góor yàlla yi fi teew rek maa ngi sant it mi ngi sant it mboolem daayira yi mboolem daayira yi maa ngi koy tàmbalee nee na mi ngi koy tàmbalee ci Mamar Ñang ci Mamar Ñang ci teg Fallou Fallou Fallou Fallou Mamar Ñang moo féete Mbàkke nee na Mamar Ñang moom moo féete Mbàkke mu yor daayira Makarim Akhlaq mu yor daayira ba ca Mbàkke ndigal bu Mbàkke Bawal nangu bu Mbàkke Bawal di ci teg di ci teg sëñ Fallou Guèye sëñ Fallou Guèye mi nga xam ne mi nga xam ne mooy yoru daayira makaarimul axlaaq moo yor daayira makaarimul axlaaq nangu ndigal bu nangu ndigal bu usine ñaari tali usine ñaari tali ak ndakaaru gi ndaw bépp ak ndakaaru gépp ndax bëri nañ fa daayira yoo xam ne ndax nee na bëri nañ fa daayira yoo xam ne ci nangu ndigal lañ bokk ci nangu ndigal lañ bokk waaye ci moom lañ aju waaye nag ñoom ñëpp may sant nag nee na gannaaw ñoom ñëpp muy sant nag sëñ bi daf maa jiital ci ñoom sëñ bi daa jiital ci ñoom ñoom nag ñoom nag ñu jàpp ma ñu jàpp ko jëmmi sëñ Abdou ngir jàmmi sëñ Abdou Karim guddi guddi ak bëccëg ak bëccëg du ñu yendal du ñu yendal fu ma leen téléphoné fu mu leen téléphoné lu ma leen wax lu mu leen wax ñu gaaw def ko ci saasi ñu gaaw def ko ci saasi ci barki sëñ Karim moo tax maa ngi leen di sant nee moo tax daayira yooyu yëpp mi ngi leen di sant bu baax sant kan Kane di sant sëñ Fallou Kane mi nga xam ne mi nga xam ne jëwriñ la fii ci Touba jëwriñ la fii ci Touba ci daayira nangu ndigal ci daayira nangu ndigal ñoom Ali Babook ñoom Ali Babook ñoom Khalifa ñoom Khalifa ñoom ci euh, euh, Ilimaan ñoom ak ñoom Ilimaan ñoom nag ak gaa yëpp ak mboolem ñëpp rek mboolem ñëpp rek ñëpp ñëpp rek soxna yi ñoom soxna Fatou Nguer ak soxna yi ñoom Fatou soxna Fatou Nguer soxna Ndey Jóob ak soxna Ndey Jóob ak soxna Mbeen Jóob ak soxna Mbeen Jóob ak soxna Ramaak mboolem jëwriñ yi mboolem jëwriñ yi ci boppi day rek mi ngi sant ñëpp ci turu Sëñ Abdou Karim ci turu Sëñ Abdou Karim di leen gërëm di leen gërëm di siyaare Baye Fall yëpp di siyaare Baye Fall yëpp di gërëm jërëjëf taw taw kàddu yi rafet na lool jërëjëf kàddu yoo xam ni kàddu yi cantante la ak ngërëm muy bokk yi nga xam ni ñoom la séqal siini ndaw mi waajuram ak sëriñ mbay Ndaw ñi ngi nii toog ñoom nee na day ñu ngi sant bu baax a baax a baax te di gërëm mbooleem ku fi teew te xam ni ñoom day nee na ñoom rëcc wuñ woon lu doon àndee sëriñ Serigne Fallilou ndax yàlla daf leen a baaxe yàlla daf leen a baaxe dimbali leen ba boole leen ak sëriñ Fallou nee na itam cant gi itam ñu jiy jiital Serigne Abdou Karim bu baax a baax a baax ndax moom miire nee na mboolem fu xaadim mën a yëngoo bin tourné gis ko ci wetu sëñ Abdou Karim nee na danoo xam ne de ngoon na la kub toolay mujj li olof di wax ndax wuutu nit ku ne defar sa ñooñ ba ku la ñee ñëw bi nga xamee ne sëriñ Fallilu may na sa maam aw fas mu tudd ko aw tuur mu tudde ko wutu nit mu ni ko lum wund mu ni ko ku la ñee ñëw waaw defar saw nit ba ku la ñee ñëw kon loola itam ñu ciy sant yàlla baax a baax a baax tax li tax ñuy yëkkati kàddu gi di ko wax nii sëñ Ablaye mbay sunu maam moo bokkoon ak sëñ Mbaye Ndaw nekk ci biir kër sëñ Fallu siini ndaw it bokkoon ak Moustapha Mbaye daare Cheikh Mamadou Fadel ñu ànd àndin wu rafet moo tax ñoom bin ma wooyee léegi ngir ma jottali kàddu yi bi ma agsee ñëpp xam nañ ma ci jàng xasida waaye nag am na loo xam ni su teewee faaw nga seereel ko mbooloo mi kon nag nee na ñi ngi sant bu baax a baax tey gërëm tey yeesalaat seen njébbal te xam ni ñoom amul lu dul sëñ Fallu rawatina nag sëñ Abdou Karim nim leen téye kon nag ñoo ngi ñaan ci yàlla li ñu yéene ci njabootuk Cheikh Mamadou Fadel yéene ko ci Cheikh Abdou Karim yal na lépp mat li sëñ Abdou Karim yéene ci ñoom ak njabootuk Serigne Fallilou gi yàlla na lépp mat nee na sant nan lool gërëm nan ndax bu see bu tey jii ñu mënoon a weesu sant danañ ko danañ ko weesu kon nag nee na xaadim kat rusloo woo leen nee na kàddu yi nee na rusloo woo leen ndax jamono ji kat dafa toll foo xam ni buñ agsi woon tey jii ñoo mbokk yi duñ màkk mën a ñàkk ba a ñëw buñ ñëwoon ne duñ fi fekk ñii danañ am kersa xam ni fa nga nekk it nit ñi moom buñ la biralut dana la yelu noo nekkee xam nañ ko kon nag ñoo ngi sant bu baax a baax xam ni kat ñii yaa ngi rafetal ca ñoom bu baax a baax ni nga war a dundee ñoom yàlla neen yàlla taxawu te leen fan wu gudd wànd ak ndax bi sëñ Mbàkke ña toogee nii dégg nga sëñ Mara toog nii ak mboolem ñi fi teew ñëpp ñoom seen xel dal na seen yaakaar dolliku na sëñ Abdou sëñ Galas mi itam ci nangu ndigal bu bàyyi koo ndar loolu pas-pas la ak nangu ndigal xam ni yoonu murit ndigal rek la su xasee jib ci yow caabi la bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi kon nag Mbàkke noo ngi lay sant noo lay gërëm yàlla na taxawaay bi yàgg balin yéene lépp suñu borom defal leen ci lu kawe seen njort ci barkeb Serigne Touba allahuma salli ala miftaahi daari salaam yàlla defar yow de dootoo dëng Cheikh Abdoul Karim Mbacke yu yaa di tànneef naxoo ñu mukk Mbacke tey jayoo ñu ngir dangaa jaar ci yoonu baax ba noppi di ci xirtal makaarimul axlaaqi Mbacke doy nag mbaax yàgg nañ ko dégg ak wax te xamuñu lu mu doon yaay ki ko doxeeti ci fi ko it ba ñu xam li mu doon bu doon ni mbubb la mbaa dàll bu ñuy sol ci jamono jii ñu ne kon ma ne këru diine gu la neex duggal ndax duñu fa wax mukk mbaayu jëfalu génn ma kaarimul axlaax yi wiiri wiiri jaari ndaari kaa la ñu jubali ndaari ànd ak Cheikh Abdoul Karim Mbàkke mii liggéeyal yàlla fees nga Mbàkke suñuy xool te fees it suñuy bët ba mën a tunoo bëgg mbaa ñu gis leen dul yow Cheikh Karim Mbàkke yaa tedd woote woo jëme ci sa bopp ñoo di woo ma xam ak wilaaya fartas yàlla ak sunna lii képp nga ñuy digal am leen yarte ami seen i ñoom seen i mag weg leen te seen i rakkit leen ci lii képp nga sax duñu digal guddeeg bëccëg waajur yi bëgg nañ yow yaa dem ëkk mbàkk ngelaw mënu laa yëngal bëgg lu ñu neex doo tax mukk loo gëmul Cheikh Abdoul Karim Mbacké yaa mat wasila yar nga ndaw ñi teg leen ci siraatal mustaqim yow de ku la déggal du réer taaw xee tamit du te yées yaatu nga woyof tabe ànd ak laa biir dëkk ci luñu jariñ tamuñ la benn njariñ Cheikh Abdoul Karim Mbacké ma yaay borom njariñ ilaha illallah la ilaha illallah karim fallilo sayyidu la ilaha illallah